أعوذ بالله الشامي العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم والحمد لله على نعمة الإسلام الظاهرة والباطنة عن وحديث والصلاة والسلام على سيد البشر مولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp fii ci seen sit weer wi TV leeral ànd ko ak Seydina Omar ñu ngi dikk dellu si ci suñu tafsiru Qur'an euh, ci saar wi nga xam ne moom suratu Baqara ñu ngi taxawoon ci huddan lil muttaqin kon ja'alana allahu min al muttaqin yal na yàlla boole ci way ragal ñi allazina yu'minuna bil ghaybi kon at taqwallahi naka lay amee borom bi subhanahu wa taala mu ngi andi sifat yi nga xamne moy melal way ragal yàlla kon yubayinu allah taala as sifat sifaati al muttaqin moy allazina yu'minuna bil ghaib mooy ñi nga xamne gëm nañu dëggal nañu li nga xamne fàddu na ci ñom te moy al akhirah ëlëk sawara al janna mbugulum bammel xewalu ëlëk dekk ëlëk ak régle ga tegu balance déegu kawsara ak siraat aljana ak sawara loolu mooy alsaadiquun loolu mooy almuttaquun kon allazina yuminuuna bil xaybi bokk na ci seen melokaan mooy dañuy dëggal li nga xam ne xayb la ci ñoom gisuñu ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne iman sax bu ñu la ko doon melal mooy an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa tuminu bil qadri xayrihi wa charrihi kon iman ci boppam ay ponkam yooyu la bi ci njëkk mooy dangay gëm yàlla yàlla du jëmm ju ñuy gis dangay gëm ay malaakaam malaaka yi du jëmm yooy gis gëm téere yi nga xam ne wàccee nañ ko fi mooy téere yi nga xam ne moo jógee ko ko asamaan ñu tudde leen kutubu samawiya kutubun anzalaha allahu ay téeralu yàlla wàcc waxyan mu nekk wax yu loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafay yebal malayka mu di leen ilham te mooy jibril alayhi salaatu wasalaam gëm dogal bu neex ba te mooy bi sa bakken gërëm ak bi sa bakken gërëm gis nga doomu aadama xamul ci boppam dara léeg-léeg mu am lu bakkenam gërëm fekk loola gënul ci moom léeg-léeg it mu am lu bakkanam sip fek lola mo gën ci mom yàlla mo xam ñun xamu ko defé lolu dafa bok ci kon manam melokanu al muttaqin alladhina yu'minuna bil xayb yemuñu te wa yuqimuna salata mo yu adduunaha ala wajhi al akmal ñi nga xam ne ñu ngay joxe julli comme ni julli mate mbokki julli moo am damay wax ne yal nañu yàlla baaxe ba mel ni xol yu mën a julli ndax julli yamul ci ay cër waaye al musalli yu salli bi lisaan wa bil aqli wa bil qalb wa bil ruux ah, loolu nag muy jullik aji yegg mooy làmmiñ waa ngi tudd yi mu war a tudd xel maa ngi koy teewlu maanaam xol baa ngi yëg ne mu ngi déyarle ak boromam waaye ruuxam sax mu ngi julli loola mooy julli lu mel ni ñaari rakkay imam Shafii imam Shafii dafa nekk ci mihrabam di def ñaari rakka am ñaari mbokk yu ñëw di ko seet fekk mu ngi taxawal ñoo ñu dugg ci mihrab bi ba toog am benn ñangoor buy dugg ci mihrab bi fekk leen ci biir gaañi kër këreeg mbir mi ba rey ko bi mu sëlmalee ñaari rakkaam wëlbatiku yam ci ñoom di jamm sante ak ñoom laaj leen lu xew kon teewul googu mu teewlu woon boromam loolu mooy julli goo xamee ne gii mooy salaatul muttaqin te mooy fexe ba sa cër yëpp nga tënk ci julli gi yàlla nu yàlla yombalal loolu ak li muy jafe-jafe ibnu abbas dafa wax ne iqamatuha bi imaami rukui mooy alladina yuqimuna salaata mooy ñi nga xam ne ñu ngi taxawal julli ci matal ay rukoom wa sujudi ak sujjóot ya wa tilaawa ak njàng yi wal xusuun ak xol bi nga xam ne mooy ragal boromam ba kii léeg-léeg julli maanaam jaaduwut kii julli ñetti sàbbaal lañ ko laaj gën jaa néew sallallahu alayhi wa sallam daana ko def fukki yoon ak ñaar jëlee nañ ci abdullahi al ashari an rasul sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan laa yutimmu rukuuahu wa yunqiru fi sujuudihi وهو يصلي فقال رسول لو مات هذا على حال هذا مات على خير ملة محمد képp koo xam ne yaa ngi julli te mataloo julli ci façon boobu kon waajooju faatu na te bokkul ci millatu muhammad yan ñu càll musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne masalu lazina la yutimma ruku'a misaal ñi nga xam ne du ñu matal seen ruko مثل الجاع ياكل تمر وتمرتين لا يغنيان عنه شيء فمن يكون لك خفيف خفيف دي لبغري غا لك بن تاندار ولا نياري تاندار كون دو سور تي بوب خفيف يانت صلى الله عليه وسلم نون لكو مثال نونو نك نون لا يالا دي مالا سين نيتي لو ملو كان موي بو مما رزقناهم ينفقون manam li len yalla wursugal ay yadkhulu fihi an nafaqat al wajibah كزكات دانيو وارال جيني تي دارا لو ملني جوخي ادك كون الذين غاغا خامني يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه والذين مما رزقناهم ينفقون كون نونو غا خامني لي نلن وسدل دانتي جوخي مو نيغي جين سين ادك نونغا تي دوندل سين سخنا دي دوندل سين جابوت مولم سين ملك يمين danañu yëkkati alal ji di def waaye ànd ak def ko te mooy def seen warugar yi waaw وهذه الأموال الداعي عندك يا ابن آدم أن يوشك أن تفارقها kon alal ndig yëkkati ko joxe ko moom mooy sabab mu jëriñ kon bokk na ci wa mimma razaqnahum yunfiqun walladina yuminuna bima unzila ilayk mooy ñi nga xam ne gëmul nañu li ñu wàcce ci muhammad muy alquran al karim ibnu abbas na ne yusaddiquuna bima jita bihi min allahi wa jaa bihi min qablika min almursalin dëggal nañu téere bii di alquran al karim bi nga xam na borom bi subhanahu wa taala moo ko wàcce ci sayyidina muhammad waaye gëm nañu téere yi fi jiitu woon nga xam ne mooy suuf ibrahima wa musa ah ak saxaayif yi nga xam ne ñoo jiitu woon yëpp ndax bu ñu ko tasee incha allahu téeméeri téere lay doon ak ñeent te mooy alkutubu samawiya bu fekkente ne ala tariqil bast waaye ala tariqi xasra nag moom ñeenti téere lay doon te mooy at tawraat wal injiil wa zabuur wal quraan refee yooyu mooy kutubu samawiya mu ne walladina yuminuuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika yusaddiquuna bi ma jata bihi min allahi li yonent bi andi sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam ne yonent yi indi nañ ko wa bil axirati hum yuqinuun ñooña ñoo wóoru ne ëllëg daañu dajeeg seen borom ah te mooy gannaaw dee kon ñooñu ñooy al muttaquun yàlla na ci yàlla boole wal yaqin yuqinuuna al ayqanu bi annahum laaqu rabbihim dañu dajeeg seen borom ñooñu ñooy bil aaxirati hum yuuqinuun wóolu nañ ne danañu dekki danañu dajeeg seen borom. wóor mu mu tàmm lazi laysa fihi adna shakk moom xam-xam la boo xamee ne bii. maanaam jegewul werante ndax kenn ku ci nekk am na ku ne moon sa sa wet tey dem na waaye gisatoo ko al mujri lil amal loolu nag mooy war a waral nit ki mu jëf nag sellal ay jëfam ngir yaakaar ci ëllëg du dajeeg boromam والذين يؤمنون بالغيب بالبعث من نيغا خامن وولو ناني ديكي والقيام والجنه والنار والحساب والميزان وانما سمي بالاخره انها بعد الدنيا لولو غيناو ادنا لي دون موم لا الاخره يالا اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون كون نك ньоญو موي المتصفون بما قدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإنفاق ما رزقناكم الإيمان ما أنزل على محمد وما أنزل بعد محمد ñoñu ñoñu ñi nga xamne qabl muhammad ñoñu ñi nga xamne manam ñom lañu dëgg dëgg dëgg dëgg al bi jaay bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi ñu ngi yem foofu. dellu dellu ndokkeel bokk yëpp yëpp. ci ci tafsir bi tabaarakallaahu euh, ñu ngi taamu def ko mu yassar ngir ngir rek digloo mbokk yi suñu kant lay kattan alquranul karim ñu téere yàlla ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak taysir ci ndimbalu Seydina Omar Faye wa fadlanallahu ala taatihi billah wassalaamu aleykum wa rahmatullah